bu tëngee ji tàkk damay lakkaale voilà dama lay wax ñun dañu amoon fi ma dëkk man fi ma dëkk dama doon génn sama kër à 100 mètres de sama kër gars yi jël benn produit sotti fa benn produit boo xam ne produit bi bu naaj bi tàkkee bu naaj tàngee day tàkk ah. loo xam ne bu naaj bi tàngee day tàkk loolu bu ko nit ñi di nooyi nan la leen def ana hygiène publique mm-hmm. dama lay wax benn affaire man ci nguur gi man Macky Sall laa faral dama lay wax critiqué wu ma kenn pour critiquer kenn mais damay wax li nga xam ne moo fi am su fekkee dañu dindi kenn teg kenn ki ñu teg na liggéey liggéey boo xam ni ñun bu ñu toogee fii parce que man gërëmuma kenn pour mu may ma 1000 francs damay wax li nga xam ne moom laa xalaat dëgg la hygiène publique de ñun waa Tëngéej dunduñu ko gisuñu ko tëngéej dafa salte loolu lañ ko gis de foofa la nekk euh, euh, Goor euh, parlant kii def naa kii deful lan ngay wax ñenn sénégalais yi nga xam ni ñoom seen gis-gis mooy président Macky Sall ku mu gis ni yaa ngi ci ay tànkam rek pour bëgg chaise am bi mu rëq sa ndigg comme kan sénégalais yu bëri dañ koy wax coow yow moom nga wax yow non dama ne ñun li ñuy dégg laa wax man li ma dégg rek laa wax. coow coow kenn dara ku def njubadi ñu jàpp la ku def njubadi ñu bàyyi. maa ngi ñëw maa ngi ñëw am na ñu doon nourrir ay ambition am na kaaw loolu tax. Khalifa Babacar Sall euh, euh, Karim Wade. Euh, Ousmane Sonko ñu ngi ko ci doon ñu ngi ko ci doon tudd. dëgg la wala dëgg on sait pas. président Bougane Gueye fan yi chaque jour mu ngi xëy dem ci ay dëkk tey gis nañu ñu génneel ko affaire fisc ak yooyu noonu. redressement fiscal. xam nga man Bougane. man Bougane sama xarit. je parle pas de Bougane kese. non non non xaar xaar ñoom ñoom ñooñu ma lim ñëpp ci lañ benn par benn. da fi nga mujjee fa laay démarrer. Mhm. man Bougane sama gaañ la. sama waay la. daf may woo ma koy woo ñuy déggoo bu ko nit defee lu ko métti sax yenn saa yi ma fajal ko ko. Mhm. comprendre la te après mën nañ ba gisante sama gaañ la parce que dafa am jom gëree la mais tey affaire fisc affaire fisc yow ñëpp a koy fay yow yow boo amee sa salaire sa salaire ñu ngi ci dagg. fisc mhm. keneen ak keneen man mii di wax yow dama koy fay man barki démb rek waa impôt dañu ma dóor da ngay fay huit mhm. dafay am xanaa kon man mi mag faral Macky Sall ne bu ñu faree non non attends may ma rek juste si moom laay appuyer man dama farte man sama basket ñu ma koy laaj man dama ngi man ko kan moo ma gën a far ak Macky man bon man li may dégg sama kër kenn du ko chose il certaines entreprises yoo xamante ne bu fekkee jege nañu nguur gi seen fisc dañuy gis ne ah xaaral eh, kii eh, Alima mhm. dama la benn affaire fii moom man gisuma fii koo xam ne dañ ko dañ ko layal koo xam ne dañ ko kii parce que fii man ñi ma fi gis ñëpp ñu jiiñ leen fi njubadi wala ñu waxal leen fi njubadi jàpp nañ leen teg leen ci yoon ok Bougane sénégalais la boo xam ni man dama ko naw naw bi ma ko naw mooy jeune la reyante laay fam kenn jàppale ko teg ay société man buggaan dama koy défendre est-ce que comprendre la mhm. tey ji ñeneen ñi nga xam ni tey ji dañu nekk ci réew mi man Ousmane Sonko li ñu ko jiiñ ñaanuma yàlla ñu jiiñ ma ko parce que bu demul woon foofu xam nga man bu demul woon fañ ko ko jiiñee tey ji même bu amul affaire bi amul loolu fa dem ok ñu jiiñ ko ko Khalifa Sall tey yàlla dogal na dañ ni dafa jël xaalis wóor naa ak wóorul moom bi mu génnee dañu loolu dama ko fekkoon mhm. ñëpp di ko def ma def ko ok Karim Wade dañ ko jiiñ xaalis atte nañ ko tëj ko man du ma commenter décision justice xam nga laa ñu ne Amadou Ba loolu tax ñu wàcc ko parce que loo bëgg chaise président Macky Sall non xam nga fii Sénégal moom mooy dëkk xam nga Sénégal gis nga boo àndee boo boo ànd boo leen amee groupe nii ngeen di ànd ci dàq fen moo ci ëpp bay rek <laughs> est-ce que ñëpp nag dañoo ñu ci bëri la plupart laa wax waxuma nag parce que télé laa nekk bëgguma ñu ne Sénégalais yi maam góor nee na leen lii nettali la ñu yow da yow tey jii li xew fii ci plateau bi suba mën nga dajeek benn nit mu la koy wax benn par benn mel ni moom moo fi toogoon comprendre la ba pare ñun réseaux sociaux yi dafa daf ñu dafa yàq lu bëri si ñun parce que xamuñu nan lañ koy utiliser yow Sénégal la ngay gis nit taxaw yor téléphone am diw ba mën di di saaga wax bu ñaaw tey jii léegi boo gisee ku jàng alxuraan ba mokkal alxuraan ba tëj alxuraan buñ ko kiwee quatre personnes ñoo koy partagé mais bu ne jigéen def na taatu neen wala bett nañ koo góor mu tasaaroo ci dëgg bi parce que nit ñi yéenewuñu kenn lu baax léegi nit ñi ñoo soxor yow tey ji gis nga li nga toog fii si télé bi nii yor sa micro bi nii teg sa tànk am na koo bokkaloon koñ koo bokkaloon classe koo xam ne li nga toog ci télé bi neexu ko li ngay génn télé da koo naqari <laughs> lu bon la bindal mu partagé ko est man man barke Serigne Touba Mbacke tele laa nekk di wax am na ñoo xam ne man damay jël sama alal di leen dimbali. mais bi événement bi événement yi amee fii bi événement yi amee fii gis naa ci ñoo xam ne dañ doon bind seen page Facebook naan lu tax songoo ko leen kër maam góor ba léegi ñoo xam ne man dama leen a xam di leen may xaalis di leen jàppale. dañ soxor. d'accord alors euh, du ñu def le procès de de de certains sénégalais encore comme ni ñu koy waxee. Mhm. Euh, mais peut-être une une une dernière question maam Góor euh, xam naa ñu ngi wax ni que peut-être loi bi bu ñu ko tegee dañoo bëgg lewal. troisième mandat président de la République Macky Sall euh, tey suñu demoon ba Macky Sall bëgg jël euh, lii di troisième mandat def troisième candidature dañ ci ànd ak moom. man bu Macky Sall di wut troisième candidature damay ànd ak moom xamul tax. Ah dama koy far dama koy jàppale damay dem campagne campagnal ko jàppale ko xamul tax fii la ñu wane Barthélemy Diaz ñu invité ko mu ne leen ñun xam nañ ne Ablaye Wade bi ñuy wax en 2012 nii warul woon nekk candidat nangam nangam xamoon nañ ne war na nekk candidat. loolu ñëpp ko gis. Ousmane Sonko wax na ko ñëpp a ko gis. Macky Sall bi ñuy def euh, kii loi kii xam na lañu ko tuddee loi loi 27 lañu nan lañu ko tuddee. révision article 27. bi ñu ko bi ñu ko dee def dama ni mandat 7 ans bi dañu ni Macky Sall fenn lenn laa xam ni xaw ma nan laa koy man fire mooy nul ne peut faire deux mandats consécutifs. mais dégg naa ni tey ji Sénégal bi ñu vingt 27 bi ñaari mandat de cinq ans la. concerné ok man maam góor man de ma part personnelle boo ko Macky Sall di wut dama koy jàppale parce que nitu jàmm la yaru na bëgg na réew mi te mu ngi liggéey. maam góor li nga li nga wax ci ñaari mandat de cinq ans yooyu euh, dinañ ko seet mais nekkagul ci ci constitution bi nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs la wax mais même même mis à part tout ça mis à part Barthélémy Diaz mis à part Ousmane Sonko lan la ñu mën a wax ci respect de la parole donnée. mais ñoom lan moo tax ñoom léegi yéen moo fi taxaw en en 2018 wax ne que euh, deux mandats lay def on ne peut pas parler de troisième mandat